bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar fu ngeen mën a nekk ci àdduna di fàttaliku ci bisub tey bii di àjjuma juróom-ñaari fan ci weeru tubaab bi ñuy wax juin muy fàttali xew-xew bu rëy boo xam ne boobaak léegi juróom benn fukki ak benn la mooy ci lañ ubbi woon jumaay Tuubaa ju mag gi cheikh Mouhamadul Fadil ibnu cheikh al Xadim anhuma ubbi woon ko ci teewaayu njiitu réew mu jamono jooju ak kilifay diine réew mépp daanaka mu doon xew-xew bu rëy boo xam ne eh, jëmmaloon na mébétum Sëriñ Tuubaa mag a mag waaye jëmmaloon ci lislamit ne dëkk réew mi réew mu lislaam la taxawal fi yàlla jumaa joo xam ne Eh, jumaa ko koon rafet jamono yi ngi fi def ci la liggéey lépp di loxoy taalibay sëriñ Tuubaa yi muy xew-xew bu rëy boo xam ne boobaag léegi juróom benn fukki at ak benn la di wane ne sëriñ bi liggéey ba mu doon liggéeyal yàlla yàlla gërëm na ko ndax boobaag léegi jumaa yooyu tey ay téeméer la wax ci biir dëkk bi rek ëpp nañ téeméer ak juróom fukk ci biir dëkk bi yoo xam ne jumaa tey li fa nekk yaay jàkk mëni su ko wàññi te moom mii kon mooy ndey ji kon ñaanam ko nangu na mébétam ba egg na yàlla na ko yàlla fayal taas ñu seen barke ñu ngi ci daldi ñaanal ngërëm ñooñu nga xam ne ñoo taxawoon ba ndigal li sotti tàmbalee sëriñ bi ko digle woon Cheikh Modou Moustapha mi ko tàmbale woon nag Cheikh Modou Fadal mi nga xam ne moo ko yeggale yàlla doon leen ngërëm doon leen barke waaye taas suñu seen barke waaye njaboot gi war a roy ci ñoom xam ne jëf ju baax du sànku borom bi neen du sànk mukk jëf aja rafetal kon li misli hada falyamalil aamiluun wa fi dalika falyatanafasil mutanafisuun wasalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, sëriñ ñu ngi lay sant bu baax a baax ci fàttali gu am solo gi nga xam ne fàttali nga ñu ko bis bu tedd bi nga xam ne <coughs> bu rëy ci lislaam di bu rëy ci Sénégal boo xam ne eh, histoire Sénégal du ko fàtte mukk eh, di sant yàlla bu baax nag di ni nga ko waxee léegi di sant kilifa yi nga xam ne ñoo taxawee liggéey bi ci ndigalul Serigne Touba tàmbale ko ci moom ma ko digale woon ak kilifa yu mag yam ko digaloon yëpp ak ñi nga xam ne jaar na seen loxo ba àgg waaye ñuy xam ne ne jumaa ji tam buñ ko ubbee bàyyi wuñ ko noonu rek ku ñëw ku nekk def na ci wàllam euh, Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko ubbi waxoon ci ju am solo joojee seen yaxub jumaa nga noonu danoo toll fii toll feek moom bu ko fu seen yoxub jumaa ngoog ba fu mu dane nu man ba liggéey itam feneen fu ñu toll rek mën nañ ko fa yóbbu loolu la junjoon loolu moo waral ñi ñëw ginnaawam ñëpp kenn ku nekk jëfe nga ci jëf ju am solo tàmbalee ko ci Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne bi mu egsee moo njëkk a miire jumaa ji euh, yokk jumaa ji yeesalaat itam ba mu gën a ak jamono te jamono yam dajaloon ànd koog taalibeem bu tedd ba alxaaji Babacar Kébé Ndiouga ñu di ko fàttaliku sunu borom defal ko ci tawfeex ju rëy ndax euh, karo yooyee mu ko doon yaasalaate ginnaaw jóge na fi tey jii ba am ñeent fukki at 1984 la fi jóge tey jii ñu jëlaat ca karo yooyee nga xam ne ci la ko fàggu woon am lu ko fàggoo woon ngir mu nekk dalwaay boo xam ne ku fi ñëw ngir seet Sëriñ Tuubaa man faa wàcc yàlla dogal diggante bi loolu jotu àgg mu denc ñu denc karo yooyee waaye yàlla sàmm ko sàmmal ko ak njaboot tamit ba ruurut réerut ba toog ba jamono yii mu nekk yitte lool ci passage maanaam yoon